li des ci sunu diggante ak élection législative yi bareetul ñooñu politique gu Macky Sall yi nekk ci diggante Touba Mbacké yëkkati nag ay kàddu fa seen ci indi seen gis-gis ku ci mel ni madame Mbacké Mariama Ndiaye coordinatrice bu SEDAF bu Mbacké mi ngi yëglu tàmbalee nag ay kàddoom ci li nga xamante ni mu aju ci wàllub jigéen ñi ci wàllub jiite parti bi moom lii la jàpp. fu jaar am ko jiitu loolu moom defe naa balaa yàgg di ngeen ko dégg balaa yàgg di ngeen dégg ni juboo euh, euh, jigéen yi département Mbacké takkoo nañu nekk benn say. gita nañu diw diw topp ci def suñu bureau comme saa ñu àndi xàccandoo di dóorandoo parce que loolu mooy suñu sakk loolu mooy liggéey bi loolu mooy jëmale liggéey bi kanam. waane kan moo war a jiite madame Mbacké. ki war a jiite jigéen ñi non seulement war na am lu mu bon bon nag am njàng war na yaatu mais it war na am mbooloo. njiitu SEDAF bi yamul foofu. ndax am na ay mébét ci élection yi nu jib di législative yi. fépp fu ma yaakaar. ni fii nu ma ko joxee mën naa fee liggéeyal jigéen ñi dinaa taxaw te it bëgg naa ko tamit nag ndax nous sommes en politique nit ki da ngay politique politique du dara lu l'art de gérer la cité pour nga gérer sa cité gérer nit ñi nga yoon mën nga am foo xam ne boo fa toogee fa ñuy jëlee décision yi nga taxaw fa di mën di leen kaasal di mën di leen wuti di indi di mën bu ñu waxee nga fàttali moom it indi na gis-gisam ci député yi nga xamante ni ñoom lañ tànnoon seen melokaan ak liñ fi jot a def boobu ba léegi. loolu la wax député du peuple jege sa askan dem di wuti mais nag munoo ñu nome la fa fal la sax laay wax yaakaar ci yow nga toog ba au dernier moment ba législative yaa ngi ñëwaat nga naa dawaat di ñëw mais nit ñi nag gëmmuñu nelawuñu yeewu nañu. yeewu nañu te am nañu fulla am nañu fayda nañu jege ji askan bi xooli leen dem au fond fond du département. kon ndax jàpp nga ni député yi ñoom. li taxoon ñu teg leen fii mate nan ko. loolu su ma nee am naa satisfaction su ma génne population bi yuuxu ma député yi ñëpp nag yemuñu ndax bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër am na ñuy liggéey mais damaa defee ni fii ñu nekk am na ñoo xam ne amuñu sax fit taxaw di laajaat askan seen baat. kon daal su la déggee góor ñi. ñoo gën a am taxawaay bu ma sëkk jigéen ñi. jigéen ñi est-ce que góor ñi tane wuñ jigéen góor ñi góor ñi am na ñuy liggéey de góor ñi am na ñuy liggéey mais wax dëgg yàlla awma cee kenn xaar ma yàlla ñoom ñëpp samay mbokk lañ samay xarit lañu waaye su dëgg jotee nañ ko wax. kàddu yi nag tukkee ko si émission bu nu amaloon ak moom ñu fas yéene leen ko jébal ci lu tolloog fanweeru minute madame Mbacke di coordonnatrice bu SEDAF jiite aussi GPF fi nekk si Touba mais également doon yëngu si wàllu pa jàmm ji si Casamance ñu mën a jàpp ni c'est une femme à double casquette yëkkati na kàddu nag di yëglu indi gis-gisam si actualité politique bi si diggante Touba ak Mbacke yi.